parce que lu bari lu ma daan mën a dunda bu njëkk ak léegi du ma koy mën a ci doo dee am time yaa ngi always parliament after sessions you have your committee meetings ñu yaa ngi dem travel around the country doo dee amati time daal anyway li nga mën a def du waaye maa ngi mën a try um, suma old friends maa ngi mën a dem ca gars yi suñu ko always sax uh, si li mën a dem mën a gisante gars uh, maa mën a communiquer gars always daal waaye anyway it's challenging now uh, because nit ñi tamit expectation from the people is so high especially this new Gambia we are foog ne loolu yow a def ak la war parce que um, si ne national assembly member dañuy foog ne lépp li nga xam ne loolu lañ xalaat daal yow So that way we took to advance. It's very challenging. am yaa ngi wax sa biir wax ne ah, da ngeen di mun a travel ah, yow since bu nga joxee ah, bu nga electé si National Assembly bi yow ñaata dëkk nga travel yéen dëkk. na travel yi lu mu mën sax fii within the country boobu moom daf lay mën a toog waaye fi ma toogee mun naa dem naa three times dem naa ci Belgium dem naa ci Sénégal ak Mauritanie daf ma toogee. lan moo lan moo taxaw nga xam um, uh, building in Belgium, they don't have uh, training and uh, um, <coughs> they don't have train, training on um, leadership training like uh, uh, leadership and parliamentary uh, and, and parliamentary responsibilities. So you're in the company. Um, uh, business na yow yani kwa sasa central. Ni bugol suma campaign easy wutoon easy na easy wul laa wax daal parce que fi encounter naa because the electorate here in the Gambia luñ xam wala luñ tradition foog nañ ne kam campaign lu ñu wax campaign ne mooy ne fu mu dugga which is not the right thing understand I yow da nga war a jëm campagne ñu wax leen lan nga leen bugg a defal wala lan nga leen bugg a fii soo nekkee si National Assembly loolu moom ñu laaj beneen problème bu mu am mooy am na ñoo xam ne dañ believe ne mag yi dafa war a lii ñoo war a nekk leaders not the young people so loolu tamit that was a problem xam nga ñaari problème suñu laaj gën a encounter because uh, muy lu ma la ne xaalis because campagne da génne loolu da nga lay génne loolu moom ko a spend t-shirt balance bu nekk even sank bu si ne amit saaf dañ lay mer eh ñi nga xam ne amul dañoo mer ne man aw ma so bu nekk fu ne ne képp nga xam ne am na kaar wala mu ngi la supporter ko sa bi sa exemple dañ ko def expensive mais di saami cost one hundred and fifty dollars so bu ko jëlee for example two thousand ki saa si something te yaa ngi am ele toy top si sa condition si par exemple mun naa ten thousand ki ko au moins dans la so bu ko def. am sa biir wax yaa ngi wax ne dafa expensive si wàllu finance yéen naka ngeen daan amee seen fonds. yenn ay uh, family members dañu a am nga ko see def léegi-léeg mu nag ñoo la bëggal seen bopp bëggal la na xëy na bu ñoo fee parti bi tamit buñ buñ annoncé ressources yaa wéyal ko ak yëpp seen tool naka nga ban façon yëg-yëg dama sant yàlla parce que kontaan na trop yaakaaroon na tamit naa ko am amoon naa confidence bu baax a baax di sant yàlla lu ma bind it fifty one personne laa bi xamoon naa ne naa ko am parce que lu ma lu ma lu ma liggéeyoon la dafa dama sant yàlla parce que njëkkoon naa contest bi ma ñaaka te si vote su ndaw laa ñaakee woon muy datin vote ma ñëw gis tay ma bind ma sant yàlla yi mënoon naa ñëwaat yàlla ma xañ ma ko soo bu ma ko amee dama kontaan kon bi nga jàppee ba tey ko waxin bi waaye yow mel noonu politiciens yi nga xamante ne nii dañoo ah, promise rek te duñ nangoo def yow lan nga promise Banjul Central ak lan nga leen lay wax. man lu ma leen promise waxoon naa leen lépp li nga xam ne bépp loi bi nga xam ne dafaa ñëw si dëkk bi te loo xam ne arrangé na Banjul arrangé na Gambia dinaa si taxaw bépp youth of Banjul naa leen taxaw bu baax in sports tamit te xam naa ne météo daf dee miin trop si gars yi bu sports. te man dama gis ne dañoo war a develop sports bu baax a baax si Gambie bi fii because ñoo def sports for endurance understand sport for wealth la donc ni mu xale yi nekkee si sports enjoy ko ba pare am si seen wér-gu-yaram ba am si xaalis am si am si àll because the richest people in the world mu nekk ñoo ñoo def sports and entertainment gis nañ suñu sub-region bi muy Sénégal Mali wala Ghana Nigeria ñu ngi mën a liggéey si loo xam ne sport investi loo xam ne ëllëg yut si ay millionnaire di indi ñëwaat loolu ma mën a moom ma def mu at the moment maa xam ne next season dinañ parce que dama observe woon ne in Banjul amul benn team buy represent Banjul boobu male ak female catégorie so loolu mu xam ne yooyu am si capital la lay commencé te ñu amuñ ko to identify and i am not code for xam for start to develop si within the academy si ministry of science high school food si code bi waxtaan naa ak principal the Fara Jokalante so gars yi jox nañu ko secondly nawet team that tamit ñu bàyyi si tamit mën na dimbali are team boo xam ne ñu si nawet tamit a sikas at kain. Umuwi ay footballs, jerseys at $355,000 at balls, hindi jerseys at balls. Sinuno kita ang daan. It's better promise na na natin the best, the most disciplined team in Bandung Central among Nako, Trophy at the best player.